xale yi ñëpp naan TFM lañ bëgg namuñ dara bëgguñ dara seetu Sénégal TFM lañ bëgg waaw mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ak euh, télévision Futur Média ñu ngi bég euh, dellusiwaat ak yéen ni ñu koy defee euh, guddi gu jot quartier général bi tàmbali ñu njëkkee ko ak téléservice bi téléservice bi nag li koy jiitu mooy xibaaru jaww ji ñu découvrir un peu carte asamaan si en attendant ñuy xëy ëllëg bis bi tey tombé ak 10 Euh, euh, tey le dix voilà donc suba le 11 demain lundi euh, nii la météo nar a xëyee tey ci wàllu température comme vous le voyez avec moi à l'écran alors Dakar dina xëy ak température yu toll ci 41 degré astafurla euh, 21 degré la Dakar di euh, xëyee suba euh, Saint-Louis 22 degré Podor 26 degré Linguère 30 degré Diourbel 37 degré Kaolack 25 degré Ziguinchor 20 degré Kolda 24 degré Tambacounda 27 Euh, Kédougou 28 euh, Matam euh, dina xëy ak température yu toll ci vingt 29 degré saint vingt deux degré bu ñu demee nag ba ci après midi bi météo mu ngi ñu xamal ni daañu yendook maximum yi par exemple Dakar dina yen yendook température yu toll ci vingt 27 degré Saint-Louis 39 degré Podor 43 Linguère 45 Diourbel 44 euh, Kaolack 44 degrés Ziguinchor 39 Kolda 43 Tambacounda 42 Kédougou euh, dina yendook température yu toll ci 44 degrés ñu baaxee leen waxtu euh, mare yi njëkkee kook waxtu marée haute yi euh, bu njëkk bi ci marée haute météo nga ko fajar gi Euh, bu 5 douze 12 du du matin jotee marée haute bi ci topp daañu ko am bu 17 heures 32 jotee lu jëm ci euh, waxtu marée basse yi benn rek la météo euh, prévoir ëllëg bu 10 heures 56 jotee waxtu yi nga xamante ni moo nar a gën a baax pour suñu mbokk nappkat yi waxtu yu njëkk yi diggante 8 heures 7 la jàpp 10 heures jàpp 10 heures 7 guddi gi mën naa baax pour suñu mbokk nappkat yi diggante 20 heures 29 jàpp 22 heures 29. ñu euh, baaxee leen euh, taux de change bi bu ngeen bëggee wecci CFA ak euh, yeneen xaalisu yeneen dëkk yi dañu koy njëkkeek xaalisu Amérique un dollar ñoo ngi koy weccee 603 virgule 162 francs CFA et puis un euro ñoo ngi koy weccee 655 euh, virgule 957 euh, francs CFA une livre sterling di xaalisu Grande-Bretagne euh, ñoo ngi koy weccee 786 virgule 138 francs CFA un yuan chinois di xaalisu Chine ñoo ngi koy weccee 94 virgule 760 francs CFA un dirham di xaalisu Maroc ñoo ngi koy weccee 61 virgule 740 francs CFA wan dalasi di xaalisu Gambie dëkku Awagay ñoo ngi koy tollee ci onze euh, virgule cent cinquante cinq euh, francs euh, CFA ñu baaxee leen itam waxtu julli yi horaire de base bi rek lañ leen di baaxee bu ko defee ngeen mën ci sukkandiku parce que souvent waxtu yi day uute selon gox bi alors fajar gi ëllëg daañ ko julli Euh, cinq heures quarante sept euh, du matin euh, tisbaar treize heures douze la ñu koy julli takkusaan seize heures vingt sept timis dix neuf heures vingt sept gée daañu ko julli vingt heures trente deux li ci des nag mooy naafila bi ku ne ak na nga koy defee waaye ñun dañ leen di jox.